moom sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke bi Cheikh Abdou Lahad la ko sëriñ Souhaïbou bu joxoon mu yar ko def ci moom lépp fu mu mas a nekk ci àddina rek sëriñ Lahad fi ñun ñii itam Cheikh Abdou Lahad andi ko ci kër sëriñ Souhaïbou bu maag sax lenn ñëpp mu jébbal na ko kenn ku ne ci ñun li war ak ci ñun sëriñ Souhaïbou bu def ci ñoom noonu lañ daloon du ñëw ma ne ñaari nit li may jëkkee wax ci sama jëmmi bokk bi boo gisee may wax fi jafe ma euh, sëñ Abdou Lahad daf ma waxoon ne ma Mahmoud ma ne ko Mbacke moom ma dugal rek laa am si li ci des lépp suñu saa boo ko def si boo demee nag loo baax la jox kon tey jii fu ndigal jógee ci si ci man rek su ma ko mënee ak bu ma ko mënul danaa ko li na ci man nag moo ne ci Cheikh Mouhamed Bachir ak i magam ak ni jaar ci kër gi yëpp sëñ Cheikh nag ñu dara la sa cantuk bopp gërëm la démb rek tegtal la ci ci liñ doon ubbi fii te sa wajur wu tedd ba dara itteelu ko woon lu dul alxuraan ak xam-xam nun ñi mu yaroon xam nañ ci dara te lépp lu mu bàyyi woon tekkal nga ko ndax bokk na ci li mujj dénkaane ci mujjam ci weeru koor boobu nga xam ne ci la wàcc liggéey mooy daara ji de suma sañoon dana takk jërét te toddu fay bu mukk yow nag takkal nga daara ji tey ji ba ñun ñëpp teg nañ ci suñu bët ba xam ne lam ni soroon tax nga ko nam ko bëggee woon yow nag dañ laa mënta fay ndax dangay ngay suñu kilifa ba noppi may nu ci sa bopp loo xam ni ñun ñii say rakk sax ku ci xamul boppam mën a gaañu si yow ndax sa wàcce sa bopp ak sa woyefal sa bopp te lépp bëgg noo dimbali rek ci sëñ Tuubaa ak nawlante loolu rek tax nga def loolu nag noonu ñu ngi koy seqal te ni say rek xam nan ko te du tee nag li war sa diggante noonu ci kilifteef nag na nga xam ne jox nañ la ko bu ma sëkk te si desaluñ ci dara kon ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm di la jotalal cant nag bu wér ci Cheikh mu Mountakha mi nga xam ni ni ko seex moom si waxee mooy taawu kër Serigne Souhaïbou nun nu nekkoon ci kër gi mu di nu fi fekk nu xamoon ni Serigne Souhaïbou det meloon ak moom ak li mu doon jaxasoo moom waxtu fi daan dikk ba xaaju guddi la fi daan jóge ngir ak jaxasoo sëriñ bi loolee nag bi sëriñ bi làqoo yow fedd ni nga ko yeesal ko yeesal koo xam ni dara desuta Cheikh Mouhamadou Mountakha kon ak cantam moom ci taxawaayam ci kër gi ak jàpp ak jàppale bi sëriñ Cheikh ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko seereel lépp di sant itam kilifa yoonu murid bépp ak bokk yi kenn gisul màggal gi ñëpp teewal fi démb ak tey ànd ak moom bis bi jàppale ko ci taxawu ko ci ba nam ko bëggee mu amee ko ni te lim ci doon rek xam na ni moom ngeen ci doon ndax yéen a bokk suñ tubaab te suñ tubaab du ñuy xàjjale du ñuy séddoo waaye képp kuy mbokk wala ngay ab seet wala ngay kilifa ñëw nga fii ànd ak moom ci taxawaay bi ba lépp mat sëkk kon mu ngi leen ci sant di leen ci gërëm di beral ngërëm nag tam taalibe yi seen jubal yëpp ak fu man a nekk amul xëy teg seen rawatina ñeneen taalibe yi nga xam ne ñoo yaakaar Cheikh Souhaïbou bi kenn ku nekk la nga man ak la nga mënul jëf nga ko ci moom ngir bis moom nag seere rek moo war seen digganteeg moom ci sëriñ seen digganteeg moom ci sëriñ Touba kon yéen taalibe yi yëpp na ngeen xam ne sëriñ Cheikh nee na seede na seen jëf la dana ko seede ci kanam sëriñ Touba la ngeen xam bu loolu jàllee nag sëriñ baa ngi nuyu bu baax nag délégation bi fi Garo ba jiite ko ànd ak ñoo xam ni ay wëllëg lañ ci kër gi di fi lépp ñu gis tey sax Abdoulaye moom la ko ko tudd moom jarbaat ak doom la. dëgg la dëgg la nag. ak El Hadj Jamono ñu xam tam taalibe bi xarit bi wëllëg la. non sëñ am na yow di ko sant di ko gërëm ci taxawaay. li ñuy njëkk ci gërëm gi nag mooy délégation bi mu tànn te fan yi ñuy gis ñuy faral di dikk Tuubaa di teew ci xew-xew yi lu nu bégee la lu nu neex la lu nu xam na ndax ku sañoon booy ku ñuy yebal ci yow doon koo xam ne danga ko seq ak moom ci kóllëre seq ko moom ci taalibe seq ko moom ci lépp ba tax na ñii mu tànn di leen yebal si ci biir Tuubaa na xam ni nun bégee nañ ko tey mbooleem lu ñu war a dox ñu ngi koy dox ci suñu diggante sëriñ Cheikh nag wax na ni naa la xamal ne la sant na président bu wér a wér a ndax bi mu ko gisee kat mbooleem lu mu ko santoon gis ko def na ko na mu ko waxee te dara gis mbooleem lu mu lépp defal na ko na mu ko soxla kon nag cant gi ñu jógee ci moom jaar ci yéen jëm ci président de la République bi yëpp lam ko lam ko lam ko koy gis nag yoonu sàmmali bi ak forage bi ba président nanguloon ko ko loolu ñu ngi leen koy yóbbante di ko fàttali président di ko xamal ni foofa liggéeyam yàlla ak jaamu yàlla ak taxawu taalib la fa sañ sax nekk kon lu mu fa def jullit yi la defal taalib yi la loolu ñu koy kon mooy yóbbante bi nga xam ne sa nag mooy moom la ma bu wax léegi bi sëñ Cheikh wax na ne naa ko beral ak boppam te ci ndigal rek la ñuy bind xam naa sax laa sukran alal waajib lépp lépp nu mu doxee ci sëñ Cheikh rek cant boobu ko tax waxtee fam waaye nag ñu des na ko cant cant koo xam ni taxawaay la sëñ Cheikh nee na mu ngi lay gërëm di la sant Cheikh Mouhamed Bachir di ko seereel boole mbokk yi fi teew di ko seereel taal cant gi nag ci sa kaw jëf la ko teg ak ci sa kaw jëf la ko teg ak ni ko def ak ni ko jàpp nee na li sa ko dara nee na wóor na fii tey te koo warale moom ci ni ko ci ni ko jàppe ci taxawaay ak ak ci na fàttewoo li nga xam ni moom nga amee woon ci barab bii ndax damay faral di wax bu waxee barab bii ñun ñun sëñ si tubaab yi fi ñëw kenn ku nekk bu fi sa wàllu bi indi dara la ñu bi ngay génne ci barab bii. lépp lu ñuy taamu si di ko yaakaar si di ngay génn si barab bi yóbbaale ko loolu képp ku jaar ci kër gi mën nga seede loolu kon ñu ngi sant ñëpp sëriñ di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp di ko def képp koo xam ne taxaw nañu ci màggal ak ci taxawaay yi noo ko jëfee yàlla fayal lu gawe sa bopp asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh